quatre secondes. sa waay ñu waaj koy waaj daal gannaaw. ñu ngi koy waaj rek waaw ko waaj noonu la gisee seen mbër Modou. suñu mbër ci lépp. di xaar mu jot rek bu soobee yàlla. di xaar mu jot. incha allah daan. bu soobee yàlla daan rek ñibbi. duñu moroomam benn yoon Modou Lo ko bu fit moo ko dàq bëri bu ko jàppee rek mu ay. deux mille deux mille may bu ñëw ñu dox si libéré waa parcelle ñibbi barki alxuraanu karim wóor na Lac de Guiers dama koy duma daan ko ci ay seconde amul fit ñemewul Modou Lo Lac de Guiers day ragal tapet la dama koy daan Balla Gaye ma teg ko ci Modou day xale bu yaru waa parcelle dañ koo sant gërëm ko ndax yar bi rek nit moom yar rek nga koy jàppe man yar laa ko jàppe waaj nañ ko nin ko war a waaj di ñaan suñ borom may ñu ndam rek waaw waaw dara moom duñ ko may laat dara dara dara duñ ko ko may est-ce que ñaan si ah waaw mos jaaroon na fi am na lu mu fi fekkan te yaakaar naa lim mu fi fekkan renforcer nañ ko bu baax a baax ah li mu fi fekkan gisoo ko bunt bu ne dugg na ko mënta jàll oui tey nag dañuy fatt bunt yëpp daan ko jël bu rafet dem ñibb